salaamaaleykum sama gars ñi ñu ngi leen di ziare bu baax a baax fii ci réew mi sport aljuma le 12 juillet 2024 ñu ñëw ci xibaar yi bu fekkee ne abonné go ñoo ngi sàkku ci yow nga abonné partagé lii di vidéo bi activé cloche de notification bi pour que vidéo ñu dugal nga bokk suñu koy njëkk a gis fii ci réew mi sport gars yi aussi bu leen di fàtte di like de leen sa vidéo bi lu am am solo la ci seen bi xibaar yi ñu ngi ci ànd ak Serigne Cheikh Al Amin Mbacké kii di Serigne Sidil Mokhtar Mbacké pare pour faj seen i aajo. al amin Mbacke sëtu Cheikh Sidil Muxtaar Mbacke radiyallahu fas gi fas gi nga xam ne ci ngóoram rek lay dox sëriñ bi fas ga ngi lakk dëkk. waaw moom ñëpp xam nañ lay mbiram kenn nattab léewtu ko. képp koo xam ne da nekk mag mbaa ndaw am jafe-jafe néew kattan moo xam sa awara di nooy di lax ngay gaaw a yegg wala nga nekk nit koo xam ne santirooto sa bopp dara ci ngóor a jëlal fas gi. fas la koo xam ne ci sama maam la jógee mu doon dond billaahi wallaahi wal kitaabi at yoo mën a am boo ko taqee taquk néew kàttan loolu Sénégal gépp xam nañ ko adduna bépp xam nañ ko te njariñ dañ koy baaxee moo tax buur ñu ñëw indil Sénégalais njariñ yi ñu jàkkaarloo mooy fas gi nga xam ne ci néew kàttan képp lay dox du looy naan du looy diwoo na leer ndax fi jamono toll naan ak diw dara wóoru ci al amin Mbacke surtout Cheikh Sidil Muxtar Mbacke radiallahu taala anhu kon na gaañi fas ko ci nu yi dañ koy commencé ci Manchester United wax ci ki nga xam ne moom la ñuy tuddee donc Jonny Evans nekk donc défenseur central très expérimenté après ba mu ci quitté woon Euh, fële nga xam ne moom mooy ca Leicester City dikk euh, foofu ci euh, Manchester United gratuite la saison donc dernière après bi fàkku bi jeexee diggante Manchester City Manchester United ci la waxoon dina toog donc jël temps xool ba xam Manchester United dañ ko nangoo renouveler donc officiellement renouveler at loo xam ne lu baax baax la ndaxte moom li muy fayeeku méttiwul en plus jour la boo xamante si ni am na expérience ñu ngi ko formé à Manchester United doon xam nag kan mooy Manchester United mën na dimbali Ten ki ci bëri bëri donc kii di Evans donc day continuer foofu ci Manchester United ci United beneen année ba tey foofu ci Manchester United après donc ba nu amee signature kii di Syracuse nga xam ne tey jii lay wàcc foofu ci Angleterre kii di safi Xavi Simons donc tamit di milieu de terrain bu équipe boobu nga xam ne moom la ñuy tuddee Hollande ak Paris Saint-Germain Manchester United mu ngi koy bàyyi xel bu baax a baax waaye Manchester United nag defagul benn offre. comme ni nga xam ne noonu la ko Bayern Munich defee ak ni ko RB Leipzig defee mais Manchester United mi ngi surveiller et que xam ngeen ne kii di Ten xaak doomu Hollande la et kii di Xavi Simons tamit doomu Hollande la donc mën nañu bañ a bokki agent mais mën nañoo am benn lien boo xamante si ni lien bu particulier la boo xamante si ni mën na faciliter lu bëri bëri en tout cas dama leen fàttali encore une fois waxi ki nga xam ne moom la ñu tuddee Erik Ten Hag waxoon na. Manchester United du ma fi indi ku mérito wul sol mooy Manchester United et que vraiment mercato bi ni mu débuté ñu ngi jënd ay joueurs yu baax comme kii di Joshua Zirkzee vraiment doon révélation euh, en Serie donc la saison dernière euh, ki nga xam ne moom mooy Dalit waxaale wuñ ko donc Jarrad euh, Braithwaite aussi nekk un très bon défenseur anglais tey ñu ngi ci Xavi Simons donc c'est des pistes yoo xamante si ne ay pistes yu ama am solo la c'est des joueurs yoo xam ne. ay joueurs yu mag la ay joueurs yu am expérience la ay joueurs yoo xam ne aussi ay choix yoo lañ war a bokk ay espoir loolu nag li mu wane mooy Manchester United actuellement moo ngi ci raay bi. toujours donc ci euh, officialisation yi ci côté Angleterre ya Chelsea donc bu kii di euh, Nicolas Jackson am nañ. ab milieu de terrain latéral gauche bu bees ñu koy wax Renato Viga donc Chelsea ma ngi ko jëlee fële nga xam ne mooy ca Suisse euh, di donc euh, ancien club kii di Ricardo Claviori ak Dan Ndoye donc latéral gauche bi euh, Chelsea mi ngi ko jëndee quatorze million comme ni ñu ko annoncé woon démb démb la tàggatoo ak équipe boobu noonu di FC Bâle moom kii di Renato Viga. après donc Renato Viga dañuy wax ci kii di Jadane Velugin comme niñ ko fi expliqué woon keroog ndogal gi yëpp day delluwaat ci moom e Suisse taxaw na Crystal Palace taxaw Everton taxaw et Aston Villa ñëw taxaw Aston Villa amoon opportunité sur bi parce que moom moo ko jaayoon moo ko formé da amoon ci 30 pour cent de pourcentage ak tamit li nga xam ne moom la ñu tuddee priorité prioritaire moom mooy bu kenn bëggee ma bëgg amoo sago ci man ngay jëkk ñëw ba pare donc loolu la amoon droit ci jour bi moo tax kii di Jadane Velugin sama gaañi di ki nga xam ne mooy yor agent bi nga xam ne moom mooy wëreelu officiellement donc demee mooy Aston Villa day fay li nga xam ne moom la ñuy tuddee euh, nga xamante moom la Suisse pare woon pour fay ko ndax lan Aston Villa dafa am li ñuy tuddee pourcentage 30 am li nga xam ne kon ki nga xam moom la ñu tuddee Jadane euh, Velugin officiellement day quitté waat foofu nga xam ne moom la ñuy tuddee Hull City pour mën a football Ligue des Champions ak équipe bi di Aston Villa kii di Unai Emery donc joxe na accord pour que ñu daal di mën a indi xale bi en tout cas joueur la boo xam ne bu baax a baax la joueur la boo xam ne bu am am talent la joueur la boo xamante si ne aussi ku mën a amal avenir ëllëg lay doon bu baax a baax ci équipe nationale bu Angleterre. toujours donc en Angleterre wax ci côté kii di Leicester City ak kii di Wilfried Ndidi di milieu de terrain bi nga xam ne démb dikkoon nañ ci côté euh, kii di Enzo Maresca après bu demee Chelsea mu daal di changé gis-gis donc kii di euh, Wilfried Ndidi di milieu de terrain Nigeria bi yokk na contrat ba atum 2027 soit donc trois ans donc ñetti atu contrat la teg ci mbir mi mu doon loo xam ne c'est une excellente nouvelle donc pour équipe bi di Leicester City fexe ba téye kenn ci seen cadre équipe bi di kii di euh, Wilfried Ndidi toujours donc en Angleterre wax ci ki nga xam ne moom la ñuy tuddee Everton bu kii di Idrissa Gana Gueye depuis le 23 février 2023 loolu yàgg na kon mën na at ba jëm donc ci ñaari at kii di Dele Ali boobu la gëj a football Dele Ali moom nag gaañi agent jot na kaa proposé club bii di Everton ndaxte nekkoon na fa moom ancien joueur bu Tottenham bii nii fi ñu toll nii nag Everton mi ngi di étudier mbir mi moom ak kii di Dice pour xool ba xam vraiment est kii di euh, Ali mën di kat en tout cas daal Everton ñu ngi xool mbir mi bu baax baax. dañuy bàyyi ko Angleterre dem fële ca Espagne comme finalu Europe bi war a am ginnaaw suba diggante Angleterre ak Espagne dañuy dem ca Real Sociedad fekk fa kii di Sergio Gómez di ab latéral gauche boo xamante si ni ma ngi woon ca Manchester City City jënd woon ko fële ca Anderlecht ca Belgique moom nag Barcelone lañ ko fermé l'attaque mu dem fële ca Belgique donc ki nga xam ne moom lañ tuddee Real Sociedad euh, signé na ko donc ci benn somme bu toll ci 10 millions mu doon loo xam ne a baax la en ne bu offensif la en plus milieu de terrain euh, la. dañu bàyyi ko Espagne jubali fële ca donc Arabie Saoudite fekk fa kii di au Oussama Awaax donc xaw dikkoon nañ ci démb pour wax leen ne donc bàyyi leen xel bu baax a baax après la signature de Laurent Blanc ñaari joueurs yi nga xam ne donc ñu ngi ci yoon pour dem fële ca Al Ittihad bu kii di Karim Benzema donc kii di Awaax donc l' Algérien euh, am na li ñu tuddee accord personnel maanaam moom ak kii di Al Ittihad jubóo nañ ci ay kàddu moo xam lu jëm ci wàllu durée de contrat moo xam lu jëm ci wàllu. Euh, salaire léegi li des moom mooy Ali Taxaat jox 15 millions rom donc transfert mën naa am ci 15 millions lay am donc après signature boobu noonu beneen signature bi nga xam ne aussi équipe bi nga xam ne moom la ñuy tuddee Ali Taxaat di ci liggéey bu baax a baax ci le dossier donc ki nga xam ne moom la ñuy tuddee Moussa Diaby en joueur donc bu Bayer Leverkusen moom tamit après bu ki nga xam ne moom la ñuy tuddee Ramon Planchet wax nañ ne Ramon Planchet c'est un directeur foofu en Europe moo tax bu demee Arabie Saoudite pour fexe ba indi yenn européens yi foofu nga xam ne moom la ñuy tuddee ci Arabie Saoudite peut-être ku doon loo xam ne lu ko jafalee doon donc équipe bii di Al Ittihad ñu ngi def liggéey bu mucc ayib ba tey moom kii di ki ñu tuddee Kepa donc di gardien de bu Chelsea donte at ñu génn ñu ngi ko able woon fële ca Real Madrid donc ki nga xam ne moom la ñu tuddee Kepa tamit Arabie Saoudite Al Ittihad ñu ngi waxtaan ak moom pour indi ko Kepa nag xëy na dossier bi dina xaw a jël tuuti temps bu amut lu ko leer lan laay wut ci lu ko leer mooy mu xool fan la kii di euh, li leneen di mujj ak Real Madrid parce que moom bëgg-bëggam mooy delluwaat Real Madrid mais nag ak naar yi moom parfois ñu defal la benn proposition boo xam ne doo ko mën a rejeter mais lii information bi daal mooy que Ali Taxaat mi ngi négocier pour recruter kii di Kepa comme gardien de but. toujours donc foofu ci Arabie Saoudite dañuy wax ci ki nga xam ne moom la ñuy tuddee Sadio Mané di joueur donc bu Al Nassr donc doomu Bambali bi nekk foofu nga xam ne. moom la ñuy tuddee ca Arabie Saoudite tey jii nii am na yenn ci ay taskatu xibaar donc yu ko annoncé à Salzbourg mais ce qui est sûr mooy que kii di Pape Mohamed Gueye donc un journaliste très proche de Sadio Mané maanaam benn jege ñaale bu Sadio Mané di liggéeyee benn kër taskatu xibaar bu nekk fii ci Sénégal bi ñuy tuddee tàggat euh, weddi na information boobu ba mu set wi ci ci possible retour kii di Sadio Mané foofu ci biir. Euh, Salzbourg foofu ca Autriche foofu nga xam ne fa la Sadio Mané nekkoon diggante 2012 ba 2014 moom jugee génération pour après am na contentement bu baax a baax ci club boobu nga xam ne moom la ñu tuddee Al Nassr salon ki nga xam ne moom la tuddee Pape Mohamed Gueye benn journaliste boo xam ne bu jegee trop kii di Sadio Mané la toujours donc fële ca Angleterre googu wax ci ki nga xam ne moom la ñuy tuddee Nino Tara Tavares di donc latéral gauche portugais bi nga xam ne depuis que mu daal di dikk ci club boobu di Arsenal ba tey ay able yu teglu rek la am moo xam ca Marseille wala ca Nottingham Forest gi ñu ko able donc moom tey jii nii ci aljuma gi ci lay déficit médical ci club boobu di Lazio de Rome bi di Lazio de Rome da koy àbbu mais nag bu saison bi jeexee daf koy jëndee lu toll ci 9 millions loolu la ñuy wax prêt avec option de sa obligation pour ki nga xam ne moom la ñuy tuddee Nino Tavares. kon équipe bii di Arsenal dina perte ñaar ci ay joueurs yoo xam ne amoon na ci ñoom yaakaar trop moom leen recruter muy ki nga xam ne moom la ñu tuddee Nuno Tavares vraiment ba mu ñëw ak rapidité bi nga xam ne am na ko mais malheureusement de progresser wu jamais moom kii di Nuno Tavares pour kii di Albert donc Zambi nga di donc milieu de terrain belge bi moom talent talent kese la kese kese kese kese donc xëy na bu demee foofu ci FC Séville yi nga xam ne fa lay jubali donc dina fa wane boppam kon kii di Lokonga à FC Séville ki nga xam ne moom la ñuy tuddee kii di Nuno Tavares à l'Agiodrome Lagiodrome googu sax xam ngeen ne ñu ne Tavares bu demee du fa wét ndaxte dina fa fekk kenn koo xam ne xamante nañ ñu koy tuddee donc kii di Guendouzi ndaxte ñoom ñaar jotoon nañoo football fële ca Olympique de Marseille kon bu demee du ñàkk ay nit yoo xam ne mën na discuter ak ñoom li may dute kayit euh, desi ci donc am lu ma xam si moom la vérification mooy est-ce que ñoom ñaar fekkente nañ Arsenal mais Guendouzi aussi joueur Arsenal la waaye nag li wër bu wër ñaar joué nañ ensemble donc fële ca Olympique de toujours Olympique de Marseille Greenwood équipe bi di Lazio-Rome génn na ci baset wi ci léegi nag beneen club bi dugg si mooy Napoli mais Napoli nag mënul jënd kii di euh, Greenwood te jaayul benn joueur Marseille nag mu ngi continuer moom di waxtaan ba tey jii nii malgré donc la déclaration de kii di Benoît di maire Marseille bi wax ne Greenwood méritowul dikk ci équipe bi ndaxte dóorkatu jigéen la te dóorkatu jigéen wul ñëw ci sama donc lii di ville bi kon kii di Marseille bëggut a dégg li maire bi wax nee nañ ñoom dañuy recruter alam xaq ki nga xam ne moom la ñuy tuddee sa Manchester United moom amul benn problème moom accepté na les 30 million yi nga xam ne Marseille proposé na ko ak benn pourcentage de 50 pour cent dañuy bàyyi ko donc fële nga xamante si ni moom mooy euh, donc France jubali fële ci ba na Bayern Munich fekk fa kii di Désiré Doué donc équipe bii di Bayern Munich prêt à formuler une offre de 35 millions donc pour l'espoir français bi nekk foofu ci Stade donc euh, offre boobu nag gaa ñi doyul pour équipe bi di Stade Rennais maanaam daal offre de cinq millions bi nga xam ne offre verbale la maanaam daal jotaguñ ci comme liquide mais nag lu ñu écrit la yëgal ko équipe boobu di waa Stade Rennais Stade Rennais nee na na li ngeen teg ci table bi dafa tuuti. donc quarante lañ bëgg ñun war a 50 Paris Saint-Germain pare na pour def contre attaque diñ ci dikkaat toujours donc foofu ci Allemagne dem jëfale ci Kingsley Coman fekk ko fa moom mii nga xam ne ñoo ngi ko formé ci club boobu di Paris Saint-Germain xëy na sax moo gën a tax Bayern na bëgg jënd ab excentré que kii di Kingsley Coman ak Saragossa vraiment nekkuñ ñoo xam ne ñu fiable lañ à 100 pour cent donc ko kii di Kingsley Coman gaa ñi euh, mi ngi donc euh, Bayern na pare na pour bàyyi ko mu dem pour 50 ñoom nee nañ 50 millions la ñuy demande donc bu fekkee ne boo de sorte bi ñëw na 50 millions seulement moom bii di ki nga si li commande sama gars ñu si bëri bëri xëy na ñu ngi sax posé question est-ce que demoon na euro et pourtant demoon na euro jot naa joué sax 6 minutes ci li nga xam ne moom mooy euro bi ba taxoon sax l'équipe di ko laaj ba xam est-ce que yow mi pare pour prendre ta retraite internationale maanaam daal est-ce que yow pare pour daal di jël sa retraite ci équipe nationale bu France parce que tamit euh, statut bi mu am nii neexu ko Kingsley Coman nag nangu cee tontu maanaam daal ci gàttal Kingsley Coman bu fekkee nag kii di Didier Deschamps day continuer ko teg banc bu nu moytuwul dina jël li ñuy tuddee retraite am international bàyyi équipe nationale France te jéem a concentré wu ci clubam moo xam Bayern Munich wala boog futur clubam bi nga xam ne mën na am mu am ko ci été bi mais en tout cas c'est un bon joueur mais malheureusement physiquement dafa a donc am problème. dañuy wax ci famille Conceicao donc Francisco Conceicao donc di doom doomi ki nga xam ne moom la ñuy tuddee Conceicao donc nekkoon entraîneur bu FC Porto te doon waaj a dem fële ci AC Milan ak Olympique de Marseille donc kon nañ ci sax yaa donc deux mois ci ginnaaw pour vous dire que ki nga xam ne moom la ñuy tuddee Conceicao am na li ñu tuddee lii di clause libératoire de 30 millions donc RB Leipzig a contacté li nga xam ne moo moom la tuddee entourage am RB Leipzig nañ ko bu baax a baax a a baax benn nag offre amagul c'est surtout que dafa bokk ci liste bi nga xam ne RB Leipzig mi ngi leen bàyyi xel xam nga RB Leipzig aussi xam na ne naa am mu perte ko ci demee ne Dani Olmo dañ koy baaxee moo tax buur ñu ñëw indil Sénégalais njariñ yi ñu jàkkaarloo mooy fas yi nga xam ne. ci néew kàttan képp lay dox. du looy naan du looy diwoo na leer ndax fi jamono toll naan ak diw. dala wóor ci al amin Mbakke surtout Cheikh Sidil Muxtar Mbakke radiallahu taala anhu kon na gaañi fas gaa ngoog dawal wuti ko ci nu mu gën a gaawee